أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñoo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ba tey ñu ngi suura ala imran ñoo ngi jël tey aaya 187 188 189 mu nekk ñetti aaya lu ñuy jëlee ñetti njàngin yu ñu sunu borom subhaanahu wa taala di jàngal bi ci njëkk ci liñ war a jàng tey mooy axada allahu almisaaq ala ulama ahlul kitaab bi bayaani alxaq li ñuy njëkk a jàng tey mooy li yàlla siñante woon li yàlla waxante woon ak boroom xam-xami ahlul kitaab yi mooy yahud ak nasaraan dafa am benn pacte benn contrat bu yàlla siñante woon ak ñoom ñooñu nga xam ne ñoom ñooy ahlul kitaab te mooy yahud ak nasaraan li yàlla waxoon nag ñoom li ci njëkk mooy bayaanul xaq leeral dëgg yéen yahud yéen nasaraan fu leen dëgg fekk na ngeen ko jël waaye na ngeen ko leeral yatanaawalu ulamaau lislaam fa inna alayhim an yabussu lxaqa wa yajharu bi waaye mbokk yi loolu yàlla tabaraka wa taala siñante woon ak yahud ak nasaraan te mooy leeral dëgg ba yahud yi ak nasaraan yi waree yàlla boroom xam-xam yi lislaam yi tamit lépp ci ñoom dañoo jaar yoon woowu yahud yi ak nasaraan jaaroon te mooy nëbb dëgg yàlla gi te li leen waroon ñoom jullit yi mooy ñu jël ci lële dars mooy ñee yàlla rëbb na leen xas na leen ndax lan nëbb dëgg kon dëgg-dëgg feebar boobu daloon yahuud yi ak nasaraan yi warul woon dal jullit yi waroon na fekk boroom xam-xami lislaam yi ñu jàpp ci dëgg benn boroom xam-xam bu tudd Muhammad ibnu Kaab mu ne laa yaxillu lil aalami lil aalimi an yaskuta ala ilmi Muhammad ibnu Kaaba nee na du dagan du jaadu ci boroom xam-xam mu noppi ci dëgg wala lil jaahili an yaskuta ala jahli nee na ku réerit ku xamul dara waroo noppi ñaari nit noppi waru leen boroom xam-xam ak ku xamul dara waruñoo noppi boroom xam-xam li ko war mooy mu wax donte nit ñi dañuy mer bonte dañ koy dëkkal feneen donte dañuy yàq deram sama sama fuu rabia da doon wax ne laytaka tarda wala anaamu xidaabu yàlla soo kontaanee ku mer affaire am la am ñoo xam ne bëgguñu dëgg parce que dañoo rëy bëgguñu dëgg parce que bu dëgg leeree seeni intérêt ñu ñàkk ko waaye nag ab boroom xam-xam moom moom yoonam moom lu mu war a def rek mooy wa ajjaltu ilayka rabbi li tarda kontaante yàlla rek moo war a nekk ci ay bëtam leneen yoonam nekku ci waaye bi borom xam-xam yi amee ay intérêt am ay ndomba tànk di seenu ay terrain ki ay hectare ay passeport diplomate ay ay ay ay ay ay ay ay la borom xam-xam yëpp noppi ndax kenn ku nekk jàpp nga boo waxee intérêt yooyu ñu la doon jox dañ dañ koy arrêté moo tax léegi da ngay noppi bu jaam yàlla yi sànkoo bu ñu alkoo bu ñuy dem safara sax sa yoon nekku ci kon Muhammad ibnu Kaab nee na boroom xam-xam warul noppi ci leeral dëgg waaye am na keneen koo xam ne warul noppi de mooy kan ku jàngul ku xamul kooku it warul noppi dina ne kim tànde waaw waaw warul noppi ci làcce ndax bu làccewul day alku du jaamu yàlla du def lu baax ndax day jéem a jaamu mooy li ngay gis tey ndeysaan da ngay gis rek waa ju baax bëgg a jaamu yàlla fekk day yàq rek ci jàkk gu dégg bëccëg mais day yàq parce que xamul diina ji de lislaam wallahi ku jàngul doo ci jaam doo ci jaamu yàlla boo jàngul doo ci def dara di nga def nag geste yi bu dee nit ñi dañuy julli di nga ñëw ci jàkka ji taxaw buñ ne allahu akbar nga ne allahu akbar buñ rukkoowee nga rukkoo buñ sujjóotee nga sujjóot buñ sëlmalee nga sëlmal waaye nag du dem parce que jaamu yàlla booy def am na loo ci wax jaamu yàlla booy def am na farata jaamu yàlla booy def am na sunna jaamu yàlla booy def am na makruh am na xaraam am na musaab loolu benn bu ci nekk boo xamul man fii ma toll nii lii lan laa war a def fii nii lan la doo ko respecté da ngay jalgati di mbëkk di dem rek waaw loolu baaxul mbokk yi lan moo tax boroom xam-xam warul noppi wa is axada allahu misaaqa alladina utul kitaab aaya boobu moo tax boroom xam-xam warul noppi lan moo tax boroom xam-xam war a wax mooy aaya boobu yàlla moo jël contrat ci ñi jàng mu ne leen na ngeen leeral waaye lan moo tax ku xamul warul noppi mooy fasalu ahla dhikri in kuntum la taalamuun ñaari aaya yi ñaari aaya yi ñoo tax kii warul noppi kii warul noppi boroom xam-xam warul noppi ki xamul dara warul noppi wa qaala aliyin radiyallahu anhu ما غزا الله على الجاهلين أن يتعلموا حتى أخذ على العلماء أن يعلموا سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه نينا bi yàlla di jàpp pakt ci ñi xamul dara ñu war a jàngi ci la joxoñ baaraam ñi xam ne leen jàngale leen bi yàlla di wax jàngalekat yi ñi xamul dara dem leen jàngi ci la yàlla joxoñ baaraam ñi xam ne leen jàngale leen kon tey li ñuy njëkk a jël ci aaya yi nekk sunu kanam mooy yàlla tabaraka wa taala dafa signé pacte ci ahlul kitaab ci leeral dëgg mu sàkku ci borom xam-xam yi lislaam yi ñu feeñal dëgg wa yuharrimu alayhim kitmaana mu araamal ci ñoom nëbb dëgg mbokk yi yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na man suila an ilmin fa katamahu uljima yawma alqiyaama bi lijjaamin min naar yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na képp ku laa yàlla képp ku nit ñi laaj xam-xam nga nëbb xam-xam bi nee na ëllëg yowmal qiyaam dañ lay ngalaab ngalaabu safara képp kuy boroom xam-xam bis ñëw ñu laaj la ab laaj ñu ne la mbir sàngam bi lu ci yàlla wax lu ci yonent wax nga nëbb dëgg gi yonent bi nee na yowmal qiyaam dañ lay ngalaab ngalaabu safara xam ngeen ngalaab xamoo ngalaab xam nga ngalaab xam nga ngalaab fas lan la ñuy dugal ci gémmiñ gi buy daw benn weñ weñ gu am lan buum boroom xam-xam bu ñu laaj yowmal xiyaam waxul loolu lañ koy ngalaab weñu safara la ñuy def ci gémmiñ gi def ko comme ni ñuy def fas jógal jógal yow fële ci ginnaaw ca miir ba kon araam na ci boroom xam-xam mu nëbbu dëgg yaakaar naa ne intérêt àdduna warul tax ñu lay takk ñu lay ngalaab yowmal xiyaama si safara te yonent bi nee na ku nëbb dëgg gi leeraloo ko yowmal xiyaam noonu lañ lay def gëm ngeen ko wala gëmu leen ko lu tax ngeen gëm ko yonent moo ko wax ku ko weddi rek dem safara ndax yonent bi nga weddi wa shahid aydan hadisul buxaari nee na am na beneen hadis bu mel noonu buy feddali wax jooju yonent bi nee na man katama ilman aljamahu llahu min naarin yowma alqiyaama képp ku nëbb xam-xam yonent bi nee na ëllëg dinañ la ngalaab ci biir safara kon nag mbokk yi lii rek war naa tax boroom xam-xam yi war a wax boroom xam-xam yi war a leeral boroom xam-xam yi war a jàngale ndax mission la bu leen yàlla sant ku ci jàng ba pare dëgg ci sa tànk léeg-léeg nga dégg ñu ne moo diw dee fi gën a jàng waaye waxewu ko jëfewu ko loolu nag du tagg xaste la diw la gën a jàng mais waxu ko waaye jëfewu ko jógal ma ci ginnaaw tegal téere bi tegal téere bi jógal ok nit bu jàngee daf ko war a waxee daf ko war a jëfee waaye jàng ba pare doo ko waxee doo ko jëfee kon lan mooy intérêt njàng mi lu taxoon ngay jàng lan mooy intérêt togg ba pare togg ba pare lan mooy njëriñ bi du yàq lekk waaye togg ba pare këppi nga amul njëriñ kon lan mooy intérêt jàng jëfe su fekkee da ngay jàng doo jëfe jaru ko jaru ko jaru ngay jàng su fekkee da ngay xam te doo xamle jaru ngay xame parce que responsabilité la yonent baa ngi ni moo ko wax ñaari hadis yu wér këng képp ku xam dëgg noppi yowmal xiyaam dinañ la ngalaab ngalaabu safara kon araam na ci borom xam-xam mu nëbb xam-xam aw taawilihi irdaa innaas irdaan linnaas wala noppiwul de borom xam-xam bi kay noppiwul mu ngi wax waaye nag day yàq waaw day yàq day taawil aaya yàlla yi naan ay sms mun nañ cee takk sëy bu la neexee nga takk lu ëpp quatre femmes bu la neexee mën ngaa bañ a julli ah bu la neexee mën ngaa bañ a woor ah di taawil aaya yàlla yi waaw kooku moom noppiwul xam ngeen mu ngi wax waaye nag la mu war a wax waxu ko daf koy yàq pour lan irdaan linnaas pour nit ñi kontaan waa sëriñ bi mos naa dégg benn sëriñ bu ñu laaj waa sëriñ bi xeesal moom dagan na wala mu ne de bu maasee dagan xeesal dagan na mu ne bu maasee dagan dégg di mu ne kan la araam ci moom maa ki def kanam gi rek bàyyi yeneen yi gaa kooku ma leen noonu yow araam na bu fekkee da ngay xees pecc nag tànk yi ba ci suuf ah haza dagan na. la ilaha illa xoolal loolu xoolal taawil bu garaaw boobu keneen ki dañ ko laaj ne ko mees moom ndax araam na wala dafa mu ne ah bu dee bu dee sa soxna su meesoo sa bët yem ci moom te bu meesuwul nga dem xooli borom mees yi kon dagan na sa soxna meesu dégg kooku lu mu wax ndeysaan maanaam te nag ñooñu di ko wax yëpp xam nga lu tax ñuy wax loolu parce que seen jabar yi dañuy xeesal seen jabar dañuy meesu léegi am nañu gàcce mënuñu maîtriser femmes yooyu ne leen bu leen mooy yàlla léegi nag ñoom dañuy bëgg nit ñi ñëpp def pour seen bosu jabar dootul feeñeeti misaal kiñ ne woon waaw yow ñun de gis nañu sëriñ bi moom comme moo la seexal moom de wax dëgg yàlla waa këram yëpp dañuy muuru dañuy dañuy mu ne gis na sama waa kër muuruñ waaye waxul dara kon dara nekku ci te sax wax dëgg yàlla ñun moom dunduñu sariya waaw ndax loolu ñu naan téere boobu ñu naan alxuraan moom xàmmewuma ci lu dul loolu di nuroog neuf te sax moom waxu ko de dafa ne loolu di nuroog neuf rek gaa ñi ne ko ah loolu waaw la mu ne waaw kon loolu loolu laa ci xàmme allahu akbar waaye nag nit ñi ñoo tooñ seen bopp de parce que dañ leen waxoon topp leen borom xam-xam ñoom ñu dem topp ñu jàngul ah waaw ndax dañ leen waxoon ne topp leen ñi xam ñoom ñu dem topp ñi xamul kon moom deful dara nit ñi ñoo ko def boo yeewee sa bopp bu mu dëgër nag def sa boppum fas wala mbaam ngalaab sa bopp ñëw du jox benn waay ne ko war ma doo te boo waree dóoral ah waa ji mu amee fula la lay war di mbéj rek comme yow yaa yeew sa bopp indi sa bopp ba ci moom ne ko war ma dóor ma ah dëgg yàlla waa ji deful dara wala mbokk yi mu ne wax pour nit ñi kontaan loolu daganul ci diine ngir kontaan loo nit ñi rek nit ñi nañu nit ñëpp nañ dem na la na la ñëpp bàyyi waaye waxal dëgg yàlla gi ndeysaan imaam ahmad radiallahu anhu wa ardaahu imaam ahmad ndeysaan ci fitna ndax alxuraan dañ ko bind wala binduñu ko ahmad dañ ko jàpp di ko dóor naan ko waxal alxuraan du mbindeef alxuraan mbindeef la maxluuq dóor di ko dóor da ko waxal alxuraan maxluuq ñu ñu bëri lañ woon ñuy dóor sëriñ si sëriñ si di génn ñuy dóor sëriñ si di génn ba mu des moom ak kenn dóor yi métti kooku ñëw ji moom ne ko sëriñ bi ñëpp weddi nañ nanu weddi man ak yow imaam ahmad ci kaso bi ñu ko tëj comme dafa kawe mu ñëw ci bën bën bi ne ko xoolal waa ji yërndu gis mbooloo moo xam ne bët yi xamoo fu mu tàmbalee xamoo fu mu yem ñëpp a ngi toog ahmad rek la ñuy déglu mu ne ko bu ma weddee ñii fan laa leen jëme quoi kon day ñoom ñëpp dañuy lakk mu ne loolu nag duma ko dal loolu moo tax mënumaa weddi dëgg yàlla gi rek laay wax ndeysaan ñu génne ko buur bi ne ko waaw imaam ahmed alxuraan lan la mu ne ko kalaamullah waxu yàlla la laysa bi maxluq du mbindeef ku la wax loolu mu ne sëriñ bi ma jàngal sëriñ bi la ja bi la jàngal ku wax loolu mu ne sëriñ bi ko jàngal sëriñ bi ko jàngal ku wax loolu mu ne ko taabi ay na diw moo ko wax taabiin boobu ku ko wax mu ne ko sahaaba diw moo ko wax sahaaba diw ku ko wax mu ne ko yonent bi moo ko wax yonent bi ku ko wax mu ne ko yàlla moo ko wax ñu daal di koy libéré mu ñibbi këram ñenn na ci borom xam-xam ne nañ am na guddi goo xam ne dañ ko dóor ba ñooru tubéy bi daal di dagg tubéy bi moo ko wàcc ñu gis ay loxo yu jógee kaw asamaan yëkkati tubéy bi daal di koy takkaat boroom xam-xam yaa ngi noonu noonu lañ meloon lu nekk lañ leen daan daj waaye daaw ñu teggi seen tànk tarafataay ni kuy kontaan kontaanal kuy mer meral imam Malik du moo tax waa Sénégal di julli di wàcc seen loxo nee nañ ah lan moo waral loolu mooy dañ ko doon dóor ko dóor ba mbagg yi yàqu ñu teg ko ci fas tourné ko ginnaaw waaw kanam gi jàkkaarloog génn mbaam gi doxam jàkkaarloog bopp mbaam mi ñu koy wëral dëkk bi di ko weddiloo benn masala mu naan maay maalik ku ma xam maay maalik ku ma xamul maay maalik maay imaamu jàkka yonent bi maay faqiihu jàkka yonent bi maay àttekatu jàkka yonent bi man maa ne ku ñu forcé amoo bakkaar gaa yi di ko dóor ba mbagg yi yàqu mënatul julli yëkkati loxo fu mu toog day siital saw mu gàddaay jàkka yonent bi ay at duggatul ci jàkka ji ba mu nekkee ci lalu dee taalibe yi wër ko ne ko Malick gis nañ la nga toog nangami at duggoo ci jàkka yonent bi luy sangaant mu ne su ma xamoon ne tey damay yendu duma ko wax waaye gént naa biig dajeeg yonent bi sama soppe bi li ma tëdd fi ci biir néeg bi yëpp guddi gu nekk dinaa gis yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi moo ma xamal tey jii duma fi yendu comme yonent bi xamal na ma lool nag kon dinaa leen wax sama ngànt luy sa ngànt mu ne leen fu ma toog mënatuma woon téye samay saw fu ma toog damay saw te bëgguma dugg ci jàkk yonent bi di ko tilimal loolu mooy sama ngànt dafa ko ci daf ko wax ci suba ci bëccëg imam Malik daal di génn àdduna boroom xam-xam yi nee nañ nit ñetti dëj ñoo ëpp addu ci nit àdduna ci àdduna bi ñetti dëj dëju imam Malik ci la bokk ndax la fa doon ci ay nit nit ñi nee nañ sax jinne yi wàcc nañ keroog ci dëju imaamu Malik kon mbokk yi ab boroom xam-xam du nëbb dëgg ngir kontaanloo ay nit pour waa ji na am lu ko neex rek waaye na mer li yaxuusa ala kasbi dunyawiya wala pour mu am ay poñetu àdduna ay hectares yuñ ko daggal fii ay oto yuñ ko may ay passeport ay ay ay ay loolu rek bëgg a tax borom tànk xam-xam bi maasale diine yàlla loolu daganul mu ne maalan aw jaahan aw sultaanan moo xam daraja la moo xam alal la moo xam pouvoir la ñett yi ab boroom xam-xam war na ragal yàlla ba moytandiku ñett yi ba mu bañ koo tere wax dëggu yàlla tey nag ñun ñëm ñoo ko gisandoo ku gëm-gëmal kuy weddi weddil ku mu neex baax na ku mer baax na ñun ñoom ñoo gis ne boroom xam-xam yi dañoo jàdd yoonu yàlla seeni intérêt moo leen gënal diine yàlla bi te yonent bi dénkaane woon na am na ñuy jam hadis bi ne hadis bi dafa daif waaye maanaa yi de wér na këng al ulamaau warasatul anbiya ما لم يخالط السلطان ويداخل الدنيا فإذا خالط السلطان وداخل الدنيا فقد خانوا الرسل جميعا فاحذروهم yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na boroom xam-xam yi ñoo donn yonent yi boroom xam-xam yi ñoo donn yonent yi feek bëgguñu àdduna duggantewuñu ak nguur boroom xam-xam yee doon yonent yi waaye feek bëgguñu àdduna duggantewuñu ak nguur boroom xam-xam bu la gën a bëgg kër gu rafet jabar yu rafet dëkk ci hôtel loose tefesu géej génn nit ñi naan cëm mu ngoog de eskay muy diri ay grand boubou yoo xam ne grand boubou yi dañuy taxaw bu toogee ci oto bi sax grand boubou bi taxaw kooku moo la gën a bëgg àdduna waaw taalibe mu gis jabaram sax rafet mu ne ko fasal sa jabar ba takk yow mérité woo kii kii ki maa ko yelloo su borom xam-xam yi demee ba gën a bëgg seen taalibe yi àdduna yemuñ ci loolu waaye ñu duggante nguur ba kenn xàmmeetu leen yonent bi nee na na ngeen bàyyi borom xam-xam yooyu yëpp faxsaruhum na ngeen leen moytu yonent bi moo wax loolu sallallahu alayhi wa sallam suñ demee ci benn téere bu tudd Fathul Manaan Cheikh Ahmed Bamba moo ko bind nee na borom xam-xam ci buntu këru buur mu ngi mel ne weñ wu takk ci demu àll ay dem àll ba borom xam-xam ci buntu këru buur mu ne ma ngi mel ne weñ wu takk ci dem àll ba xam ngeen dem àll ba weñ wu ci takk mu ngi mel ne borom xam-xam bu taxaw buntu këru buur yi Sëriñ Tuubaa ma ko wax wax naa téere bi nag Fatxul Manaan la tudd ku bëgg a xam dëgg la wala lu dëgg soo jugee nga dem jëndi téere bi ñaareel bi ñuy jàng tey mooy laa yajuusu daganul lil muslim jullit an yuhibba an yuhmada bima lam yafal daganul ci jullit nga bëgg ñu lay dagan ñu lay tagg ci loo deful ñu naan la jaajëf fekk defoo ko loolu daganul lan ngay bëgg waaw góor ci loo deful kuñ naan waaw góor ku ne lan la war a jur yaa jëf-jëf ji te sax même boo ko jëfee waroo cee bëgg waaw góor ndax bu yàggee seytaane taxaw yàlla dàqu ndax da ngay bëgg bis bu nekk ñu lay tàgg naan la yow la yow la yow la ab boroom xam-xam warul bëgg loolu maa lam yafal min al xayri wal maaruf li may def ci lu baax wala njekk gi ngay def bul ci xaar taggu nit bul ci xaar ku la gërëm waaw waay waay diw moo mun a dem jàkk ah diw diw moo mun a julli waaye diw jaamu yàlla la diw ku téy làmmiñ la diw ku baax la diw yooyu ñu lay tagg te nga def ko yooyu sax mooy tandik ko ndax yonent bi nee na bu ngeen gisee kuy taggaati di jayaati xëpp leen suuf ci gémmiñam al imaam albani rahimahullah dafa mos a toog ci pénc mi ndeysaan di jàngale ba ci àgg rek benn taalibi jóg ci ñi doon teewe dars ne ko sëriñ bi àddina bi yëpp dégg naa ne yow yaa fi raw tey ci hadis sëriñ bi daan ne alhamdulillah maa ngi sant yàlla li yonent bi wax ci sunna yëpp li ma ci jàng yëpp sama bët tegu ci jéem naa koo dund ba mu des benn hadis rek moo ma moo ma moo ma dese woon mais tey yàlla may na ma occasion pour ma dund ko mu daal di tibb suuf xëpp ko ci gémmiñu waa ji doon wax ne ko yonent bi nee na bu ngeen gisee kuy jayaate na ngeen xëpp suuf ci gémmiñam waaw allahu akbar nga waroom xam-xam yi noonu lañ meloon bëgguñu woon ku leen jay gis ngeen imaam ali ba mu joxee ñetti nit ña ndogoom jaam la ko jox ak miskin ak ah prisonnier lan la teg ba mu ko joxee ba pare lan la leen wax ah balaa mu leen di wax innama nutimukum li wajhi laa nuridu minkum jazaan wala shukura bu leen ma fay bu leen ma gërëm bëgguma laa jox ma génn fii nga naan waaw waaw bu doon du moom du ma ndogu biig am na ñoo xam ne tamit bu ñu joxee ba pare waxoo dara kii xaaral xaaral ba mu ñëwaat ma jox ko barki démb tey mu romb ma nii mënu ma bañ ma sax nuyu te démb rek fii la taxaw pare dara xaaral ba mu jaaraat am na ñoo xam dañuy joxe bëgg ko wax waaye ki ki joxe am tiyaaba mooy kan mooy ki def ne imaam ali ne la laa nuridu minkum jazaan wala shukura ndeysaan lu tax inna naxaafu yawman innama nutimukum li wajhillah laa nuridu minkum jazaan wala lu tax inna naxaafu min rabbina yawman abusan qamtarira gis nga moo tax lu xew fa waqaahum allahu sarra dalika alyawmi wa laqaahum wa jazaahum bima sabaru ndeysaan muttakiina eggali ko 500 mi ngi nii boo ko eggale day duggaat de duggaat na ci yow laa jëm de dayoon nga pare loolu mooy diine mbokk yi ab julit warta ut ñu koy tàgg ci ci loo deful sax nag laa waxuma laa nag même li nga def koro bul ci bëgg ku la tàgg ab julit na xemmeem ngërëmal yàlla walis taggu nit ñi waaw bëggal ngërëmal yàlla bul sàkku bëtu nit ñi ak seeni làmmiñ bal bi man yafalu sarra wal fasad mu ne waaw bu fekkee ne ñun dañu ne kiy def te sax deful ngir yàlla wala kiy def pour bëtu nit ñi ñooñu lañu tere ñuy def ndax nit ñi wax waaw léegi ki nga xam ne moom kon lu bon lay def nag suñu teree ñaar ñee kon ñetteel bi nga xam ne moom yu bon lay def ndax dana jaadu ñu tagg ko ah ah ñun nag tey loolu la ñuy def dañuy des ku kuy def lu bon ñu koy tagg kuy def lu bon gars yi di ko tagg waaw di buuxante këram te lu bon lay def kon loolu tamit mbokk jullit yi dafa bokk ci li ñuy jàng tey ci sunu dars yi waaye ba tey mbokk yi bokk na ci li ñuy jàng tey mooy mulkullahi taala li kulli cheyin wa qudratihi ala kulli chey tujibu alxawfu minhu walragbatu ilayhi wa aksaru nnaasi an hada gafiluun wa bihi jahiluun mulkullahi taala nguuru yàlla bu kawe bi taala kulli chey nguuru yàlla kawe na lépp loo gis ku mu mën a doon yàlla mooy sa supérieur moo la tiim neexal na la neex na la naqari ci nguuru yàlla gi ngay diriiku ngay wommatu na la neex na la naqari ci nguuru yàlla nga nekk ci pouvoiru yàlla nga nekk ci kattanu yàlla moo la noot yàlla lu ko coobarew ci yow mu am lu ko neex ci yow mu nekk ak ku mu doon kattanu yàlla moo tegu sa kaw ala kulli shay ci lépp nag bu fekkente ne doomu aadama xam na lii kàttanu yàlla ko noot mënta coobarew mu def lu neexul yàlla yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla mu ngi wax ci benn xadisul qudsi mu ne yéen sama jaam ñi suuf si sama suuf si sama suuf la asamaan si sama asamaan la man yàlla li ma dogal rëdd ko ku mu neexul génnal sama suuf asamaan bul dox ci sama kaw suuf demal nga xooli beneen borom boo jaamu ku dul man yenn saa yi nga dëkk ak sa papa nga mere ko mënatoo dëkk ak moom nooy def ah nooy def dangay génn kër gi yenn say bagage yenn saa yi ngay liggéey ci benn société nga am ak waa ji problème nooy def nga démissionné bàyyi dem feneen wala yenn saa yi nga nekk benn dëkk dëkk bi neexul nooy def nga génn dem beneen dëkk waaw yàlla nag nee na man sama asamaan bi sama suuf si li may dogal ku mu neexul bu la asamaan tiim bul dox ci kaw suuf demal feneen nga jaamu beneen yàlla aca nañ takk suñuy bagage ñu xool fi ñu jëm naa takk sa bagage ngay dox rek nga ne dinaa dem ba fu asamaan nekkul asamaan si dootuma tiim aywa bismillah ban dëkk ngay teeri dëkk dëkk bu tudd àllaaxira foofu ngay teeri ji boo yenoo sa bagage ne da ngay dox ba jeexal suuf si ndax da ngaa mere yàlla da ngay dox ba asamaan dootu la tiim xam nga fan ngay teeri dëkk boobu tudd yoomal xiyam fa ngay yenneeku jee sa bagage te boo fa demee fekk ko fa kon nag loolu mooy wan ne yàlla moonu noot wa ma antum bi mujizina fil ard kenn ci yéen mënul rëcc ci kaw suuf si kenn ci yéen mënul rëcc ndax kàttanu yàlla moo tegu sunu kaw kon nag looloo tax mbokk yi ñu war a ragal yàlla comme mënuñu ko rëcc nañ ko ragal waaw war raxbatu ilayhi nañu xemmeem yàlla nañ ko xemmeem nañ ko bëgg wa aksaru naasi an hada gafilun lépp ci nit ñi nag lii dañ koo sàggane xamuñu ne yàllaa leen noot xamuñu ne yàllaay seen boroom xamuñu ne yàllaa leen moom xamuñu yàlla coobareem mooy daw ci seen kaw waaye mbokk yi lii ma doon wax léegi wa bii jaahilu lépp ci nit ñi lii dañ koo réere am ñoo xam ne jàpp nañ ne yàlla mënalu leen dara waaw man ku ma mënal dara waaw man kan moo mën ci man dara man kan moo ma ñeme man kan moo ñeme taxaw ak man man kan moo ñeme ñëw fii ci man laa juum rek yàlla waaw yàlla kan moo la ñeme yàlla ku la mën yàlla ku la ñeme teg dara yàlla benn waaye dafa ñëw ci biir sëriñam mbër la woon ne sëriñ bi damaa ñëw tey pour nga ñaanal ma ku ma jàpp rek daan la sëriñ bi ubbi fenêtre bi ne ko yërndul mu yërndu gis armeel yi mu ne ko boo dajee ki daan nii nag ki daan ñii ñëpp nag nooy def mu ne ko ñaanal ma ma ñibbi waaw waaw ki daan ñooñu ku mu jàpp daan la waaw katabal mawtu ala al xalq fa kam falla min jeysin wa afna min duwal ayna man shaadu wa saadu wa banaw أين فرعون وهامان أين الملوك أين أبناء الملوك أين الجبابرة ليسان وكم يالا كم جاب رك تك لا سوف كو يالا تي رك say mbokk bàyyi seeni liggéey bàyyi seeni soxla kenn du añ kenn du reer rek lu ñu suuli la sànni la ca àll ba feeg néew baa ngi ci digg kër gi wala mu ngi ci jàkk ji kenn du am soxla ñi doon liggéey danañ am permission jigéen ñi duñ dem marché oto yi danañ gaare ñu tukki woon dem daggi billet balaa kenn di delluwaat sa soxla rek ñu suuli la rek ñëpp doog a normal bu leen ko suul maa ngi ñëw dagg naa billet vol bi une heure de temps kese la nan ma xaar ñu téléphoné doom ji mu ñëw ci patron bi ne ko dañ ma leen sam papa dee na wàccal wàccal demal ñoo ngi ñëw yenn saa yi sax ñu ne tëj leen société bi ñëpp dem nga ñëw fekk ñi waroon xëy ñëpp kenn xëyul allahu akbar ñu tukki téléphoné nañ ñu ngi ñëw lan moo xew yàlla am am na ko mu jàpp tey yàlla dafa am ko mu jàpp ah ah ah waaw mu ngoog kon nag kaa leen di góorgóorlu mbokk yi kaa leen ñu jaamu suñu borom ku ñu bañ a nax daal nañu wax rek nan jaamu yàlla loolu dong mooy dëgg bi dem leen ngeen jaamu ji yàlla. doom ji ak baay ji dañoo ànd ci naaj bu tàng jër la ñu bayoon yépp ñu xaaj ko ci digg bi dem yóbbul seen sëriñ. ñëw yendoo wàcce saaku yi ba ngoon jot naaj bi tàng jër ñu war a ñibbi ñoom ñaar ñu topp ci tali bi nag di dem amuñu oto ñu dox lu tolloog deux heures de temps ci naaj bu tàng bi ba ci àgg rek sëriñ bi romb leen ak BMW bi moom kenn ci kanam ak chauffeur bi ñu seen ko muy ñëw ñu estobé ko taxawul mu romb leen ne leen nii doom ji dox ba caag mu ne waa pap ki ñu romb léegi-léegi du suñu sëriñ bi ñu doon jox suñu tool bi ak liñ ki ñu doon wàcceel bagage yi du moom la papa ji ne ko waa moom la kay mu ne ko waa moom papa du dox yóbbaale wunu papa du dox yóbbaale wunu ah wóoruma de mu ne ko waaw papa kii moom comme yóbbaale wuñ ci àdduna ndax àllaaxira dina lu yóbbaale papa ji na tekk mu ne ko man dem naa jaamu ji yàlla man moom xaw ma kan waaye man jaamu ji naa yàlla ñu ñëm nañ laaj suñu bopp laaj boobu ku am oto romb la yóbbaale wu la te kenn nekku ci bu la waxee àllaaxira dinaa la yóbbaale ndax dina la yóbbaale kaay leen ñu jaamu ji yàlla mbokk yi loolu mooy wax ci da ngeen a bëgg a dégg-dégg kaay leen ñu dem jaamu ji yàlla kon loolu mooy sunu darsu tey أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلن يكما سبنا يلا جانغ لا يم ليك ci kaw nak ken dekku de wa iz akhadha Allahu mithaqa alladhina aya 187 وإذ أخذ الله يا طلف
وإذ أخذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبين لا ت- لا تبينونه للناس ولا تخ- ولا تقتمونه فنب- فنبذوه فنبذوه وراء ظهورهم نبذوه وراء ظهور اقلك يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب عليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير borom bi tabaraka wa taala nee na wa is axada allahu fàttaliku leen ba yàlla jàppee ba yàlla jëlee miisaaq dikk al ahdu al muakkad bil yamin contrat boo xamante ne dafa ànd ak signature ak waat yàlla waxante ko ak banu israil uutul kitaab ñi ngi yàlla joxoon téere ak yahudi ak nasaraan yi fàttaliku leen loolu bi yàlla waxee ak yahud ak nasaraan moo tax yàlla ne fazkurul fa zakkirhum fa zakkir lahum fàttali leen lan lañ leen di fàttali wa is axada allahu misaaqa alladina utul kitaab ba yàlla siñante ak pacte ñooñu ñuy wax les gens des livres mu yahud ak nasaraan lan la yàlla waxanteeg ñoom mooy la tubayinannahu linnaas di ngeen leeralal nit ñi dëgg gi allahu akbar dëggu yàlla gaa ngi nii de di ngeen ko leeral la tubayinannahu linnaas axada ala ulamaihim al ahda yàlla jël na ci pacte ci borom xam-xam yi yahuud yi ak nasaraan ne leen beneen an yubayinu linnaas nañu leeralal nit ñi lan la ñuy leeral nuuta muhammad melokaanu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy kan ci alquran na ngeen ko leeral de am na yonent bu may yónni bu jëntalu jamono lay ñëw moom mooy tëj buntu yonent yi amul yonent buy ñëw ginnaawam képp ku gëm ne ginnaaw yonent bi yonent ñëw nga fa yow yéeféer nga déggoo li ma wax wala ma deera la ma delluwaat ci wala da ngaa jaaxle ku gëm ne ginnaaw yonent yàlla muhammad am na yonent bu fi ñëw yow yéeféer nga laa wax mu ñuul kukk ak foo mën a dëkk ak foo mën a bokk ak mbooloo moo nekk soo gëmee ne ginnaaw Muhammad yonent ñëw na fi rek yow yéeféer nga ginnaaw yonent yàlla Muhammad amul yonent ndax yonent bi moo mottali yonent yi waaw rawatina nag nga gëm ne ab yonent ñëw na fi ab sénégalais la la ilaha illallah waaw yàllaa ko waxoon di nga dëkk fii ci wetu géej gi ay ay gaal di dugg ci géej gi di indi jën bu tooy nga ciy lekk damaa yor enregistrement yi de ay enregistrement laa yor ci loolu benn waaye di ne yonent bi yàlla ne koon di nga dëkk sowu jant nga dëkk ci wetu géej gaal yi di xotti géej gi di dem di jàpp ay jën yu tooy nga ciy lekk aaya bi fan la nekk mu ne suratul fatir ci suratul fatir yi ban aaya la mu ne ah seet leen suratul fatir yi rek man xaw ma ban aaya fi mu nekk mais aaya baa ngi suratul fatir yi en tout cas man dama maari sarama bi man xaw ma yéen mais man am naa ko loolu ak kéefir la yonente bi musul ñëw Sénégal musul ñëw sax Afrique waxuma laak nag di nekk nit ku ñuul yonent yàlla Muhammad bi ñu jàngoon ci alxuraan daal yàlla yónni ñu ko ab arab la woon moom moom ñuulul woon papaam Abdallah la tudd yaayam Amina Màkka la juddoo Madina la faatoo dundoon na juróom benn fukki at ak ñett alxuraan wàcc na ci moom ñaar fukki at ak lan ñaar fukki at ak ñett alxuraan di wàcc ci moom sallallahu alayhi wa sallam nubiya bi iqra ursila bi ya ayuha almudathir waaw keroog bi ko yàlla di sonoo da ko ne jàngal keroog bi ko yàlla di yónni da ko ne ya ayuha almudathir e yow mi sàngu jógal ñun daal loolu lañ ci xamoon ñun waaye ñëw na Sénégal naan dikk leen ñëw leen këlee leen waaw ban téere la ko yàlla jox bi mu ñëwee Sénégal ban charia la ko jox bi mu ñëwee Sénégal loolu mooy wax bi an delluwaat an delluwaat mbokk yi delluwaat suñ diine xam ne bépp woote bu wuuteeg alxuraan rek du dëgg waaw bépp santaane bu wuuteeg santaane yàlla rek du dëgg dañu nekk ay jullit di jaamu yàlla yàlla wàcce ñun ci téere won ñu yónnee ñu ab yonent mu jàngal ñu nu ñuy jaamoo yàlla noonu ñuy jaamoo yàlla yàlla defal ñu ko ci alquran léegi nag ñun bu ñu bëggee dund yeneen diine leneen lu dul bu wuuteeg alquran wuuteeg yonent bi kon ñun lan lañ ah da ngay dégg sax politiciens yi boo bokkee ci benn parti politique nga jékki-jékki daan ne man secrétaire général bi li muy def neexatuma en tout cas man parti bi lu ñu wax dootuma ko defati lu ñu lay wax dañ lay dàq dañ la ciy génne waaye léegi nag noo nekkee jullit ba pare nga ne waa dëgg la de man de wax dëgg yàlla jullit laa waaye nag dégg naa jullit ñi dañoo war a woor mais man duma woor de démb rek moo ci mujj démb démb benn xale bu góor ndeysaan ma fekk sama buntu kër ma toog ay 11h muy jaay lampe chargeur yi ma woo ko di waxaale ak moom lampe bi mais ma sentir mu ngi sàq mi ma xool ko siggi xool ko ne ko waaw mais dafa mel ne yow da ngay lekk mu ne waaw damay lekk kay man ko xanaa wooroo mu ne noo wooruma de ma ne ko luy sa ngànt ba wooroo dama feebar mu ne feebaruma de dangaa tukki tukkiwuma de mais lu la jot mais dara ma ne ko non mais am na lu la jot da nga war a woor mu ne waaw dama war a woor kay mais wooruma ma ne ko lu tax non dama woor rek parce que damay jaay daal jaay bi dafa métti mënuma ànd ak mënul ànd ak woor quoi ma ne ko ñaata fan wooroo mu ne ma ñeenti fan wooruma maa ngi moom maa ngi moom xam ngeen fan la ñu mujjee pourtant jeexal naa alxuraan de fasture laa jàngee ba yegg ci digg bi ma daw daara ja ñu sama papa jàpp ma delloo ma ñu yóbbu ma daaru salaam fa lañ ma yeewu ba ma wàcc xoolal rek li ëpp ci nit ñi ndeysaan dañuy nekk ci kaw gi ñu yar leen ci diina jàngal leen xuraan waaye bu ñu ñëwee Dakar rek nekk ay saay-saay ay bandi moo tax Dakar day soppi nit ñu bëri dañ ñëw Dakar rek soppeeku ma ne ko est ce xam nga ne doo julit ah bu ma wax loolu ma ne ko yow kay fi mu ne ba nga gëjee woor nga gëjee nekk ci islaam yow dara dalu la ki yàlla may ngant mu fekke weeru koor bañ a woor mooy kan wa man kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin uxar ku feebar wala kuy tukki wala ku am ngant ci ngant yi lislaam mooy ngant kooku lañ ne bu mu woor waaye keneen amoo droit bi amoo droit naan ci man mbooloo sàngam yow da wooro non non ñun duñu woor man mbooloom diw laa bokk mbooloo moomu yàlla yónniwu leen mbooloo moom mbooloo boobu waa ji jiite waa jooju yàlla yónniwu ko noo tudd noo tudd noo tudd noo tudd Maxtaar nga tudd Mahmoud Fall kan moo jiite mbooloo mi Mahmoud moo tax Mahmoud ne leen bu leen bu leen bu leen jaamu yàlla ngeen bañ a jaamu yàlla Mahmoud yàlla yónniwu ko de kan la yàlla yónni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki la yàlla ne topp leen ko ki la yàlla wax lu mu leen indil jël leen lu mu leen tere bàyyi leen ndax da ngeen gis ci alxuraan keneen ku yàlla ne topp leen ko ah da ngay gis ci alxuraan yàlla ne keneen maa ko yónni wax la su lu mu wax dëgg la topp leen ko kan la ah man de muhammad rasulullah laa gis atiu llah wa atiu rasul wa ma ataakum rasul fa xuzu wa ma naha an fantahu wa in tutiuhu tahtadu yaa ayuha alladina amanu laa tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasul kenn kese kese kese la ñu yàlla toppaloo ginnaaw moom mooy yonent bi te yonent boobu moo ñu indil sharia moo ñu indil koor moo ñu indil julli moo ñu indil azaka moo ñu indil aji màkk lépp lu ñuy def ci jaamu yàlla yonent boobu moo ko indi léegi nag bu ñeneen ñëwee di tere li yonent bi indi woon ñun lan moo jaadu suñu digganteeg ñooñu xam nga looloo garaaw yonent bi di def leen benn waaye ne bu leen def nit ñi bàyyi yonent bi dem def topp waa ji li mu wax kan moo indi woon julli léegi ñun fi am na ñoo xam ne nañ bu leen julli wala amul yonent kan moo indi woon koor am ñu ne bu leen woor de ah kan moo indi woon nañ aji màkk am ñu ne bu leen aji màkk màkka jar sa dem ah màkka de màkka de wax dëgg yàlla fii ku fi yem rek daanaka saaja faju na nga gis gars yi est-ce que waay bañ a dem fii ku fi yem fii bu yemoon ak màkk yàlla dina wax walillahi ala naas hijjul bayt man istata ilayhi sabi yàlla dina wax loolu rawatina nag ñu naan ñu naan fii ci dexu meew fii ci dexu meew waaw ah yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne mbokk yi li war ci ñun mooy ñu gendeeku delloo ci suñu xel xool li yàlla wax ak yonent bi ak li ñeneen ñi wax lan mooy lu dëgg borom bi nee na maa jëloon contrat ak yahudi ak nasaraan man leen nañu leeralal nit ñi la tubayyinannahu linnaas nañu ko leeralal nit ñi wala taktumuunahu bu leen ko nëbb lépp alkitmaan ixfaau shay nëbb mooy lan mooy nëbb dara wala nga weddi ko laa yara wala yulam laa yura wala yulam kenn du ko gis kenn du ko xam loolu mooy mbir mi da ngay gis ci ndeysaan am na ñoo xam ne sax téere yi kilifa diine yi bind pour nit ñi jaamu yàlla dañoo nëbb téere yooyu pour bañ nit ñi gaaw xam dëgg gi te réew ñu gaaw ñu gaaw denc ko ndeysaan pour lan bu dëgg gi feeñ affaire bi de nëbbu leen ko bu ngeen ko nëbbee bu ko nit ñi xamee du baax de ñu nëbb ko teg seen tànk loolu mooy li yahud yi def rek yàlla yónni yonent bi def ci moom ay melokaan def ci ko ci injiil def ko ci tawraat daan ne yéen yahud yi comme yéen a fi jiitu yéen yahud ak nasaraan yéen a fi jiitu na ngeen ko leeral bis bu nit ñi ñëwee taxaw di laaj kan mooy yonent bi wax leen mandarga yi nekkoon ci seen téere ñu daal dem effacé mandarga yàpp pour nëbb dëggu yonent yàlla muhammad yàlla wax na ci suratul baqara gaa yi yaarifuunahu kama yaarifuuna abnaahum wa inna fariqan minhum la yaktumuuna alxaq wa hum wa inna fariqan minhum la yaktumuuna alxaq wa hum ah yalamuun tamit tamit nag bay bul da ko ne hum yalamuun ñu bëri dañuy nëbb dëgg te instant bi ñuy nëbb dëgg ñoom xam nañ ne ñu ngi nëbb dëgg gi ñoo ko gën a tey xam nañ ko waaye lan mooy lu tax ñu nëbb dëgg gi parce que dëgg gi day yàq seeni pouvoir waaw nga def ne Sénégal tey bu ñu libéré woon nit ñi ñu dem am tawxiid jaamu ji yàlla dina am lu bëri lu yàqu dina am ñu bëri ñu yàqule ah waaw ndeysaan waaye loolu tax ñu nëbb dëgg gi daal di koy bañ a leeral ñeneen ñi nga xam ne aussi ñoom bëgguñoo dund dëgg ñoom it daw topp leen ñeneen ñi nga xam ne ay caaxaankat lañ ñoom it dem topp leen xoolal da ngay gis sabar bi musique bi sàngara si caaxaan yi làmb ji yëpp koo gis mu ne am naa sëriñ kuy commencé sax danaan ci sama barke sëriñ te sëriñ bi du ko ne lii nga nekk dafa xaraam génn ci lii boo ci dee da ngay dem safara sëriñ bi daan patt noppi waaw bu waa ji daanee ñëw daal di daa daal di xaaf benn 500000 wala benn 100000 wala benn 250000 ne ko bisimilah waay mu ne ko tàllal loxo yi ca kaw ca kanam rek ca kaw ca kanam rek. waaw léeg-léeg sax waa ji mooy woote ne ana sama suukaru koor waaw. kuy laaj taalibe ay suukaru koor nag te taalibe yi di liggéey ci lu xaraam doo leen musa wax ne li ngeen nekk dafa xaraam loolu nag moo dal yahud ak nasaraan yàlla di ko bañ mu dal ñu moo tax mu wàccee ko ci alxuraan munu koy wax mu ne ñu dama signante woon contrat ak yahud ak nasaraan ne leen bu leen nëbb dëgg gi wala taktumuunahu bu leen ko nëbb yàlla ne fa nabazuhu waraa zuhurim loolu ma waxoon ak ñoom ñu sànni ko seen ginnaaw fële fa nabazuhu ñu sànni ko wara zuhurihim seen ginnaaw allahu akbar waay waay waay waay leeral leen dëgg gi ñu ne ah dañuy profito bu ngeen dof dof loo ba taalibe yi yeeweeku di ngeen am problème borom bi ne alquuhu sànni nañ ko wa tarahuuhu walam yaltafitu ilayhi gestuwuñu sax ci li yàlla wax déet dañ koo sànni fëli mel ne ignoré ko benn ignorance boo xam ne sa yaram day daw soo gisee tey nit ñi ni ñu mel ak caaxaan yi ñuy dugg ak yow nga yër tuuti ci quran yër tuuti sunna yonent bi nga gis ne ci borom xam-xam yi ne patta pattaaral li gën a garaaw mooy dañuy woote benn jàng ay jàng wala ay ziyaaraat wala nga gis taalibe yi ñëw bëri bëri bëri bëri bëri aka neexoon sëñ bi ne leen yàlla nee na yonent ñee ngi xeesal ñee ngi meesu ñee seen ñee ngi paccal ñee ngi dangal du wax duñ ci wax dara dañu daan daal loxo yi ci kaw loxo yi ci kaw bàkkaar ci suuf loxo yi ci kaw bàkkaar ci suuf loxo yi ci kaw bàkkaar ci suuf gars yi di tàcc rek jóg leen yaaba jóg leen yaaba màggal yoneen jóg leen yaaba màggal yoneen gars yi di fecc rek di fecc rek ba ngoon jot ñëpp ñibbi la ilaha illallah sa yaram day taw xoolal ñii tey ndeysaan bu ñu leen waaroon wax leen dëgg yàlla gi minimum boog bu ñu demee trois jours trois jours dinañ normal di julli di normal balaa imaan bi wàccaat amaana keneen ñëwaat waaraat balaa loolu wàccaat amaana amaana am na ñoo ñenn ñoo xam ne bu ñu xasee dañ ciy sax waaye déedéet da ngay gis koo xam ne dafa dem ci benn cérémonie religieuse ba ñibbisi du fa jële dara doo fa jële mooy mooy mooy sunu léegi ni instant yi ñu nekk ci dañu nekk ci waxtu koor nit ñi dem ci jàkka yi di naafi la mais léeg-léeg nga dem benn jàkka boo xam ne bi nga demee ju liggéey naafi la ñëwaat jëlewu fa dërëm amul leen lu avancé waaw allahu akbar jëlewu fa dara lu la yokk bal sax yenn saa yi lu la alag nga fa jëlee walla rek dem ba ci jàkk jëlewu fa lu la alag tey looloo am ci sunu pénc mi ci Sénégal ay nit ñoo xam ne ay jaamu yàlla lañ ay jullit lañ au lieu ñu wax leen dëgg waaye ña ñu joxoon dëgg gi ne leen waxe leen ko fa nabazuhu wara zuhurim dañ ko sànni seen ginnaaw gestuwuñ sax bañ koy sànni yëgaluñ ko sax seen yaram waaye yemuñ ci rek sànni aaya yàlla yi ak dëgg yàlla gi seen ginnaaw bañ koo gestu yemuñ ci waaye washtaraw bihi thamanan qalila tey ngeen dund aaya yu wàcc a Sénégal de washtaraw bihi thamanan qalila dañu koo jënde njëggu néew njëg googu mooy lan passeport diplomate njëg googu mooy lan mooy hectare yuñ dagg njëg googu ñooy lan mooy benn hameur buñ la may buñ la yónnee njëg googu mooy lan tonu ciment njëg googu mooy lan ay saaku ceeb njëg googu mooy lan diwlin njëg googu mooy lan ay nag njëg googu mooy lan loolu moo tax doo wax washtaraw bihi dañ koo jënde samanan qalilan njëggu néew lan moo tax yàlla ne njëggi ndëggu néew la pourtant waa ji may nañ ko 50 hectares waa ji may nañ ko passeport diplomate est-ce que loolu njëggu néew la wala du njëggu néew xam nga lu tax yàlla ne njëggu néew la ah lu tax yàlla ne waa ji li mu am lépp liñ ko joxal ba mu noppi nëpp dëgg yi lu néew la lu tax yàlla wax loolu billaahi waaw ndeysaan wallahi du dara ndax jàngoon nañ démb mataaul xuruur xoolal ñi ñu ko joxoon ñëpp ñu nëbb dëgg gi ana ñu tey dee nañ bàyyi nañ fi lañ leen joxoon dem ci yàlla ay loxoy kese ku sa xel dem nag nag fii may wax yéen ku seen xel dem ne kooku joxoon nañ ko rek kooku laay wax ku seen xel dem ne kooku ci la bokk rek ci la bokk ndax yéen yéen ko ci boole ci seen xel kon ci la bokk waaw ñiñ joxoon ay caaxaani àdduna ay kërëg ay ay ndomba tànk yenn saa yi sax ndeysaan ñuy génn motaar nekk ci kanam motaar ndeysaan motaar bi nekk ci kanam ñu naan nit ñi nii nga gis waa ji nekk ci ginnaaw ñu naan diw la sëñ bi la ndax àdduna moo tax mu noppi waxul dëgg bi anamu tey dee na bàyyi fi motaar beeg oto bi bàyyi fi kër yi bàyyi fi hectares yi bàyyi fi jabar yi bàyyi fi compte banque yi bàyyi fi lépp ba muy dem ci yàlla lan la yóbbaale juróom-ñaari mètre percal ak witeen dégg naa benn borom alal bu mag bu nekkoon ci Sénégal bi mu deewee milliardaire la woon il paraît amoon na sax jet privé bi mu dee ndeysaan ñu jox doomam 5000 ñu ne ko demal marché nga jënd luñ ko luñ ko sàngee mu dem ñëwaat toog di jooy ñu ne ko lan la mu ne sam pap ak ni mu amee alal 5000 laa yóbbu delloo si waat naa weccit ndeysaan percal bi mu jënd saabu bi njàmpe bi eau de javel bi coton bi ah parfum bi delloo si waat na weccit mu toog di jooy 5000 laa yóbbu delloo si waat weccit ndeysaan gis ngeen doomu aadama waaw allahu akbar moo tax perte nañ bu ñu delloo suñu xel bu ñu delloo suñu suñu xel perte nañ su fekkee dañuy xool xumb xumb Sénégal ak mbooloo yeeg wax wax yi ci ànd léeg-léeg nga dégg rajo bu ñu takk timis di wax ay musiba ba minuit jot li ñuy wax dara amu ci ba bët set dara amu ci ci yàlla diine yàlla ji dara amu ci waaw parce que démb yendu naa benn conférence boo xam ne 3 heures laa fa ñëw ba 6 heures mais musiba yi ñu fa doon wax dama jaaxle sax ndax yenn saa yi da ngay dégg rek mais keroog moom dama dégg gis waaw diw ba mu dajeeg yàlla diw bi malaaka yi ñëwee ci moom diw keroog ba mu ñi- ba yonent bi ñëwee ci moom keroog ba ñuy xeex badr moom ma nga fa woon taxaw hée man dama dégg dégg ba jàng ma commencé di nelaw laa ilaha illallah ana ban sénégalais moo xeex badr amul sénégalais bu xeex badr laa wax amul badr ña fa xeexoon ay saxaaba lañ te xam nañ leen ñaata lañ xam nañ ñi xeexoon badar ñaata lañ xam nañ ñi dee seen tur xam nañ ñi jàppoon jaam xam nañ ñi desoon doon dund yonent bi saxaaba yi mu amoon mbooleem lu ñu def mbooleem fu ñu demoon di xeex xam nañ mbooloo ma keroog ba ñuy dem ñaata lañ ñañ farey ñaata lañ ñi ñibbi ñaata lañ noonu la ko ulama wu sira jàppee ba mu yeex takk man nag gisuma ci ku dëkk Sénégal ci téere siira yi gisuma ko ci dañ ñoo jàng fi téere siira yi ndax gis ngeen ci benn sénégalais bu tudd Moodu mbaa Paate mbaa Demba mbaa Yero mbaa Kumba mbaa Ayda mbaa Sukay mbaa Kinne mën de gisuma ko ci loolu mooy ba ci ba ci tukulóor yi ngeen say ko Umar Fuutiw o tawaama wolde badiri omo ɓoorni la ilaha illallah Wo- eh, omo omo waɗɗi pu- puccu njarlu alkawma ɗin isa wax yu garaaw la de wax la ilaha illallah ba ci tugalóori sax kirim kirim boobu dafa ànd egsi say ko omar o tawaama wolde badiri yene yaaga ne badir fii ak tëngeej la woon loolu ngeen foog ba sénégalais yi fekke ko badar du woon tëngéej de badar ma nga amoon fële ca dëkk buñ naan ah gox buñ naan jaziratul arab ci fu ñuy wax al mamlaka al arabia saudia tey fala badar amoon diggante màkk ak médine diggante ñaari mbooloo la woon ay jullit ak ay yéeféer yéeféer yi bàyyi koo màkk nekk junni nit jullit ñi bàyyi koo Médine nekk ñetti téeméer ak fukk ak ñett seen njiit moo doon Muhammad waa màkka seen njiit nekkoon Abu Jahlin ñu daje ci benn place bu ñuy tuddee Badr ay teen ñoo fa nekk teen yooyu ñoo tudd Badr moo tax ñu tuddee ko place ba ci fukki fan ak juróom-ñaar la woon ci weeru koor léegi nag bu sénégalais yi ne ñoom am nañ ko ko ko fekkee loolu moom wax dëgg yàlla doy na waar wax dëgg yàlla jànguñ ci alxuraan ak sunna yàlla mu ne am na sénégalais bu fekk Badr waxuñu nag sénégalais yi du ñu ay jàmbaar ah jàmbaar lañ waaye nag demuñu badar nag wala wala yéen da ngeen gëm ne dem nañu badar ah yéen a ngi noppi de seeni maam ay jàmbaar lañ de seeni maam ay jàmbaar lañ de waaye nag demuñu badar nag da ngeen xam ne amu leen fi nag benn maam bu dem badar nag waaw wax dëgg yàlla nag na leer naññ nag waaye nag seen maam ay jàmbaar lañ woon nag jàmbaar lañ de wax dëgg yàlla jàmbaar lañ waaye nag demuñu badar nag waaw demuñu nag demuñu de dëgg yàlla demuñu. bu fi wax samaam dafa dem Badar demul demul samaam demul de demul bu fi wax mukk dem na demaluñu rek waaw Mahmoud Mahmoud dimbali ñu yàlla mu ne wastaraw bihi jënde nañ ko samanan qalilan njëggu néew ndeysaan xoolal yàlla li mu teg ci aaya bi mu ne fa bi sa bon na maa yastaruun la ñu ko jënde waaye waaye ngandawaay la ñu jënde dëggu yàlla gi melokaanu yonent yàlla muhammad nëbb giñ ko nëbb bañ koo leeral lañu ko jënde bon na fa bi sa bon na maa yashtaruna lañu ko jënde lu mu mën a doon boo ko jëndee dëggu yàlla alku nga ak lu mu mën a doon parce que bis day ñëw loolu jeex nga des ak yàlla bu dee alal la alal ji day jeex bu dee ay kër la bu dee bu dee lu mu mën a doon léegi nga bàyyi ko dem ci yàlla léegi ana kon li taxoon nga bàyyi dëgg yàlla gi ndeysaan moo tax même bu ñu lay rey jàppal ci dëgg rek jàppal ci dëgg gi rek loo mën a am amal dëgg loo ñàkk bul ñàkk dëgg booy ànd àndal ak yàlla loo am boo amee yàlla perto waaye loo ñàkk bu fekkee yàlla ngi ci alku nga yàlla mu ne laa taxsabanna bu mu foog bu mu yaakaar allazina gaa ñi nga xam ne yafrahuna dañuy kontaan bi ma ataw ca la ñu def wa yuhibbu na ñu ngi bëgg an yuhmadu ñu tagg leen bi ma lam yafalu ca lañ deful gis nga de am na nit ñoo xam ne dañuy kontaan di bég pour lan pour ñu leen di tagg fu ñu toll ci mbir yoo xam ne ñoom sax defuñu ko moo tax yàlla ne yow sunu yonent laa taxsabanna ya rasulana yow sunu yonent bul foog allazina yafrahuna gaa yi kontaan bima ataw min alcharri walfasaadi ci ñi nga xam ne dañuy kontaan ci lu bon lu ñu def bi tahrifi kalaamina ci changé sama wax man yàlla wa tabdili awamirina ak changé samay santaane wa taxyiri shara'iana ak di soppi samay sharia ñu kon def ko ba pare kontaan ci di bëgg ñu tagg leen mais di mooy ngand mais moom moom sëñ bi léeg-léeg léeg-léeg yow mi jàng diine nga gis kenn ci ñi ñuy tuddee ay borom xam-xam ci réew mi toog ci télé wala ci rajo di wax musiba yoo xam ne yow da ngay jaaxle surtout borom xam-xam boo xam ne aduna rek aduna rek foo ko fekk ay jigéen ak man jëndal naa benn jigéen portable un million jëndal naa ko këru or ak jëndal naa ko oto or ak waaye jigéen jar na ko kat ah waay waay dafa taaru xool leen ko amul ko muy nural ci Sénégal waaye xool leen photo ba ngi ni wala zaaru borom xam-xam yu mel noonu ah di ba pare li gën a doy waar mooy dañuy jël aaya yàlla yi di ko wëlbati. di ko firee nu mu leen neexee nu mu leen neexee mel ne yàlla moom amul lu mu wax wala amul lu mu tere wala amul lu mu santaane wala amul lu mu bàyyiloo nit ñi ñi perte nag mooy ñi def ñooñu ay ay ay ay ay sëriñ ñi perte mooy ñi ñi def ñooñu ay kilifa diine ñi perte mooy ñiy roy ñooñu nga xam ne dañoo jàdd dañoo alko nga xam ne àdduna amuñu fi dara lu dul lii ñu nekk bu ñuy dee dem safara ñooñu ñoo perte moo tax borom bi di nu leeralal ndax balaa ñooñu di nu nax mu ne bul yaakaar mukk yow sama yonent gaa ñi di kontaan ci lan di bég ñu tagg leen ci ay mbir yoo xam ne lam yafaalu defuñu ko fala taxsabannahum bu leen foog bi mafazatin min al azab loolu dana leen rëccal yowmal qiyaama déedéet du leen rëccal de yow sama yonent bul yaakaar ne ñii di def lu bon ci changé sama wax xoola jullit boroom xam-xam buy changé waxu yàlla wa tabdili awamirina di changé santaane yàlla yàlla julliloo woorloo ajel ajuloo saraxeloo jàppuloo sanguloo setloo yooyu yëpp ñu ne la bul ko def jarul ngay sangu de jarul ngay set jarul ngay aji jarul ngay saraxe lépp lu la yàlla wax ñu ne jaru ko alxuraan sax ñu ne la alxuraan da jarta jàng ndax ràkkal la nal nañ ko dindi nañ diw gi bu yàgg waaw jàng nangam moo gën jàng alxuraan suñ la gëm la woyew ne alxuraan bi nga jàng leneen moo gën nga jàng alxuraan ñu gëm loolu ko ba nga bàyyi alxuraan soo xëyee di nammi nammi di daw di barti barti ci ay mbir yoo xamante ne xam nga ne moos li alxuraan a ko gën mais nga romb alxuraan kon bu leen bi yaakaar ne ñoo ñu def loolu yàlla ne ci jàmm la ñuy nekk déedéet. ak ñeneen ñoom lu ñu def mooy wa taxyiri sharaina sama sharia bi la ñu changé sharia yàlla bi la ñu jël changé ko yàlla ne lii la ñu ne du loolu. jullit ñeenti soxla lay am ñu ne déedéet lu ko neex lay takk góor ak jigéen waru ñoo joxante loxo ñu ne ah joxe leen rek bu leen ci xalaat bànneex boo ci sentirul bànneex rek dagan na miraas góor ji benn lay ñaar lay am jigéen benn ñu ne loolu du maandute dañ leen tollale waaye lépp lu yàlla wax ci charia ñu changé ko bu leen jàppee saa ci dagg leen loxo bi ñu ne déedéet loolu gouvernement bi daf koy tere lu yàlla wax rek changé ku njaaloo na ngeen ko caw ñu ne déedéet ku njaaloo na ngeen dajale cotiser ngeen ngénteel ko bala muy am gàccee ana gars yi ñu ne ñu ngi nii ñu ne ku nekk na indi 5000 non kii sunu gars la quoi maire yi dem teggi ci natt yi ñu luwee baaf yi indi taranga bi taranga bi mooy baaf musique bi ñu yendoo musique ba ngoon saa waay di bàkku di génne dënn sol bu déem langal tubéy ji ci ginnaaw baram bopp bi waaw ñu naan ko jaajëf waay mu naan waxoon naa leen booy bi dinaa ko waaye yow waxoon naa leen ko waaw Eh, allah allah allah waay waay ba nga dajeeg yàlla waay waay di nga réccu waay waay mbokk yi àdduna jaay nanu àdduna jaay nanu fàtte nañ sunu diine fàtte nañ sunu borom changé nañ charia yàlla wahuma zalika te ñoom ñooñu def loolu yuhibuuna an yahmadahum nnaas bëgg nañ nit ñi tagg leen waaye waaye ngéntele ko xumb teral ngeen ko ñun yaakaaroon nañ ne du ngeen ko teral waaye teral ngeen ko indi ngeen xar indi nag baas ngeen juróomi baas tantey kuy ñibbi ku ne am na 5000 ak benn garaam bu teral ngeen ko ndeysaan bëgg ñu tagg leen ci lu araam ba leen gisu leen loolu ah ah kenn tontuwul de gis ngeen loolu wala gisu leen ko ah mu nga bu amul rek wax leen amul de man de loolu rek laay sàkku gis ma fexe loo xam ne gisu leen ko amul bu leen ma bàyyi ma dem ndax dama yàl ko ndax damay wax lu dul dëgg dimbali leen ma rek ngeen ne asalaamaaleykum loolu de amul moom ma ma daal di tuub ñu dem waaw def lu bon ba pare bëgg ñu tàgg la ci waaw nga gis koo xam ne dafa meesu cinq paquet paccal ah xotti si ba ci suuf pooj yeeg lépp di génn mu rosa kanam gi pacc paccal ko xeesal xonk cur ba pare bëgg bu génnee ñi naan ko lan est-ce que waay toj nga fi de yenn saa yi sax mu romb ay papa yi naan ko lalal naa la lalal nan la xoola kooku def lu bon ba pare bëgg ñu tagg ko ci lu bon loolu bëgg ñu tagg ko ci te lu bon la def ndeysaan wa maa zalika ànd ak loolu lépp yuhibuuna bëgg nañ an yuhmadahum naas nit ñi tagg leen aw ay yashkuruhum wala ñu sant leen ndeysaan wa yusna alayhim ñu leen di tagg naa leen jaajëf ndeysaan ngénte li ngénte ëmbal la ndaw si dem na salon solu ji oto bi indi na ko di pin pin bi wàcc na ci baas bi ñépp daw ñëw wulululululu yaa jërëjëf commencé di ko tagg jaay déewul jërëjëf mu naan nii nag di nuyoo mel ne dara xewul xoolal def lu bon ba pare au lieu nit ñi tuub ñoom ñépp mais ñuy ñuy ñu ne yàlla ñoo tey wala boobu tamit gisu leen ko ah gis ngeen ko ah kon alhamdulilah comme yéen a ngi gis rek baax na ñeneen ñi moom ndeysaan dañoo bëgg ñu tagg leen maa lam yafalu min alxayri wal islaahi ñoom defu ñu lu baax de ba pare ñu bëgg ñu leen yéen yéenay defkatu lu baax yi te defu ñu lu baax musu ñu def lu baax mais ñu bëgg ku leen ne yéen yéen a fi gën a baax is amaluhum kaana aks ndax seen jëf yëpp nag xoolal boo koy xool dafa con contrainte dafa- dafa opposé waaw lu bon rek la dara baaxu ci tey nag ñu bëgg ñu ne leen yéen a baax waaw nga gis jaaykatu sàngara ci la amee alal am xew ñëpp taxaw jërëjëf waaw sa am am bi ak ñëpp a ko bokk waaw kee alalam mu ngi ko jëlee ci làmb jërëjëf ku baax la ndax man moo ma yóbbu màkk xanaa xamu leen ku jël alal ju bon ju araam yóbbu ko màkk xam nga nu mel wala nga jël alal ju bon di ci jaamu yàlla xam nga nu mel mu ngi mel ne ku- ki dem duus ba pare di laaboo ay sawam mu dem duus dékk saw yi ba pare mu jël saw yi laaboo ko mu génn nag sol ay yéreem nag dafa set wala dafa gën a tax ah allahu akbar boole na ñaari sobe boole na ay saw sobe la boole na ay dem àll ba sobe la noonu la ku jël alal bu bon di ko jaamu yàlla noonu nga mel ba pare li ci yéeme mooy lu bon loolu ngay def nga bëgg ñu tagg la ne la ku baax nga mu ngi mel ne jigéen ju jaaw jaay boppam bëgg am xew ne ni ñëpp taxaw ne kii ak a baax noonu la mel loolu la yàlla di ñu leeralal nii ndeysaan borom bi tabaraka wa taala nee na laa taxsabanna bu mu foog allazina gaañ a nga xam ne yafraxuuna dañuy bég bi ma ca la nga xam ne ataw ñëw na indi nañ ko wa yuxibuuna ñu bëgg ay yuxmadu ñu sant leen gërëm leen bi ma lam yafalu ca la ñu deful defuñu lu baax bëgg ñu tagge leen ne leen def ngeen lu baax ñoom lan lañ doon def ca àdduna yu bon yu bon yooyu ñu doon def nag ñu bëgg tey jii bi ñu amee xew bu kenn wax lu bon li ah waaye yow sëñ bi yaa fi dàqa jaay sàngara yow ndax keroog yow yaa amoon butel dooru sàngara bi yaa ko jëloon am na ñuy am disque d'or ah kan mooy am disque d'or béykat bi football lu muy am jaaykatu sàngara lu muy am tey door mbër bi lu muy am mbër door ah ngemb door allahu akbar allah waaye gis nga très bien waaye sama gars yi ngemb door allah ngemb door disque d'or micro d'or journaliste yi ballon d'or bouteille d'or euh, il vin d'or champagne ah colis d'or am na ñooñ ñooñ di carte aussi dañ leen jox ceinture d'or ndeysaan ah ah ma dégg guma ko de gis guma ko de wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla gisaguma ko de loolu kay wax dëgg yàlla gisaguma ko coran d'or ah loolu de gisaguma ko gis ngeen ko yéen gisaguma ko de yélimaan bu ñu ne imaam bi am na kaamil d'or ah wala sajaada d'or wala kurus d'or gisaguma ko de ah miir oustaz luñ ko jox mi luñ ko jox paquet suukar man de loolu laa gis imaam yi sàndaram lañ leen jox sukar koor sukar wala jox leen lan benn goros wala jox leen lan benn saakub ceeb wala jox leen lan benn potu jadida waaye sijaada door ah kaamil door ah yéen yéen a wax mbëri dañuy am ngemb door du yéen a wax loolu footballeur yi am ballon d'or journaliste yi am micro micro d'or président bi nag lu muy am moom day am benn déedéet benn chaîne lañ koy wékkal bu ngand mu nekk or ñu def ci chaîne bi drapeau réew ma mu wékkoo ko ñëpp dañu am or ba mu des ñuy jaamu yàlla ñooñu daa amaguñu or ñi jaamu yàlla amaguñu or de ñeneen ñëpp nag am nañu or ballon d'or disque d'or ngemb d'or centre d'or micro d'or waa léegi nag ñii ëpp am or xool leen ndax dañoo jaamu yàlla dama leen laaj ah léegi buñ dee nag mbër mi bëre ba am ngemb d'or xanaa bu dee dañ ko war a ngemb ngemb bi ne ko nag tey nag mu niir ak munkar nga nar a dajal ci bàmmeel nag ngembul or bi ah jour bi kazalik ki am ballon d'or xanaa buy dugg bàmmeel dañ ko ci war a dugal ñu ne ko tey nag boo demee dëkk boobu tudd àllaaxira na nga yóbbu sa ballon d'or bi ci stade bi nga fubal ko foofu allahu akbar moo tax àdduna dañuy caaxaan rek xoolal lépp après waa ji loolu mu am or bi mu deewee nu ñu def ah bi mu deewee ballon d'or bi nu ñu def ballon d'or bi mu amoon mbër mi bi ma amee ngemb door mu dee lu ñu def ngemb bi ah ndeysaan yëpp ay caaxaan la moo tax ñu war a góorgóorlu fexe yóbbaale àllaaxira li nga xam ne moom la ñu yàlla sant ay ay ngemb door ak ay këru door ak këru jamaak yàlla laaju ñu loolu ndax loolu amul njëriñ ci yàlla yàlla ne leen ni ngeen lépp lu ngeen amoon ci àdduna bàyyi ngeen ko fa bàyyi ngeen ko seen ginnaaw tey ñëw ngeen ci man ñëw ngeen ci man tey wallaahi war taraktum maa xawalnaakum waraa zuhurikum ndeysaan tey bàyyi ngeen lépp lu ngeen amoon ñëw ngeen tey bàyyi ngeen ko seen ginnaaw tey yéen a ngi ñëw ci man dañ leen góorgóorlu mbokk yi bu nu seytaanee nax bu nu àdduna jay kuy def lu baax sax léeg-léeg bëgguñu ku lay gërëm waxuma la ak nag ku def lu bon ba pare bëgguñu gërëmee la lu baax yàlla mu ne fala taxsabannahum bu mu ñu fo bu ñu foog bi ma faasatin rëcc nañ minal azaabi ci mbugal bu leen yaakaar ne ñooñu di def lu bon loolu bëgguñu tagg leen dañoo rëcc rëcc ñu de bi mafaasatin min al azaab bi manjaatin min al azaab fi dunya wala hum fi laaxirati azaabun alim yàlla mu ne rëcc ñu ma àdduna te àllaaxira dinaa leen yóbbu ci mbugalum safara wala taxsabannahum bu ñu foog mukk mukk mukk yaakaar bi mafaasatin ne ñoom raw nañ min al azaabi ci mbugal allahu akbar maanaa kon di def lu bon te deewoo dara dalu la feebaroo da ngay gis ndeysaan gars yi nga xam ne dañoo nekk ci milieu lu bon li daanaka da ngay toog ba caa nga ne waa ñii moo xanaa dara du leen dal bis bu nekk waa ji day gën a leer xaalis bi di gën a bëri oto yi di gën a yokk kër yi di gën a yokk lépp di gën a yokk waaye yàlla nee na bul yaakaar ne waa ji raw na maa ko bàyyi rek li tax ma yokk affaire yi mooy pour bu mu am temps pour tuub lépp lu mu waroon am àllaaxira jox naa ko ci àdduna mu des ma jàpp ko rek mu dee dem safara bu leen yaakaar na ñooñu raw nañu fala taxsabannahum bu leen leen foog bi mafaasatin ne ñoom rëcc nañ minal azaabi ci mbugal wala hum ñeel na leen azaabun mbugal aliim bu méttee métti kan mooy wax yàlla lii du sama wax yéen ñi tiim ci téere français yi nan lañ ko bindee kon xam ngeen ne lii waxu yàlla la yàlla nee na bu leen foog mukk def ko lu bon raw na ma raw ma de kenn ci ñoom rëccul te dinaa leen mbugal mbugal mu méttee métti yàlla bàyyi na loolu mu ne walillaahi yàlla moom ñeel na yàlla mulku samawaati nguuru asamaan wal ard ak suuf allahu akbar walillaahi ñeel na yàlla mulku samawaati nguuru asamaan wal ard ak suuf mbokk yi gis nañ fi ñu bare bari ñu doon wax seen bopp ay buur lañ gis nañ fi sax ñoo xam ne dañ naan ñoom ñooy borom jaam ñi gis nañ fi ñoo xam ne wootewu nañu lu nekk ci ay woote waaye boobu ba léegi déggu leen ku ne maa moom asamaan wala lu nekk na gaa yi wootewu nañ ko waaye maa moom asamaan kon nit ñi ne la yow yaa mën a fen waaye yow moomee asamaan yow asamaan bi nga judd fekk ko fi sa papa bi mu juddee fii la ko fekk nga naan maa moom asamaan waaw mais yeneen woote yi nag gars yi nag mooy kii mooy borom kun fayakun kii mooy borom na am mu am bu nee na am mu am bu dee du am du am waaye duñ ne maamam asamaan de ndax boobu moom dafa garaaw ndax boobu boo ko waxee même waa ji bu la rusee dina wax ci biir xelam sama sëriñ bi moo mun a fen fan la moomee asamaan déggoo kenn maa moom suuf waaw suuf sépp maa ko moom déet da ngay dégg ku ne maa moom pàkk bi déet te bi ngay dund nga ko moom de boo dee ñu doon ko jox ko ñeneen ñu jaay ko keneen jënd ko yàlla nag moom moom asamaan moom moom suuf moo tax mu ne walillaahi ñeel na yàlla mulku samawaati nguuru asamaan wala ard ak suuf ku fii buur yàlla mooy sa buur te kuy buur yàlla moo la may ci nguur gi moo tax mu ne qul illahumma malikal mulki tuutil mulka man tasha wa tanziul mulka mimman tasha wa tuizzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadika al xayr innaka ala kulli shay'in qadir waaw yàllaay buur bi de koo fi dégg mu ne man buur laa rek may ko ay at ana Senghor ana Abdou Diouf ana Abdoulaye Wade Macky Sall ci topp ana nguuru yàlla gi moom dañ na ah jeex na ndeysaan koo fi dégg mu ne maay buur rek déglu leen ko may leen ko ay at yu ànd ak i ay weer ak i semaine ak i fan léegi nga dégg mu folleeku yàlla nag moom moom asamaan moom suuf mooy buur bi allah mu ne wallaahu yàlla moomu di buuru asamaan ak suuf ala kulli shay'in qadir lépp la mën ndax yéen am ngeen buur bu mën lépp kon kay bu doon loolu courant du coupé buuru Sénégal bu mënoon lépp courant du coupé kon sénégalais yi dinañ liggéey kon étudiants yi am bac dégg naa ñu ne ñu ne examen bi dafa catastrophe ah ah voilà dégg naa ñooy di wax de xaw ma dëgg la am déet nag ah dëgg la ne ah kon kay woo leen buur bi mu réglé ko buuru Sénégal woo leen ko mu réglé ndox mi mu réglé courant bi mu may jigéen ñi ay jëkkër mu may ji xale yu góor yi liggéey mu faj ñi feebar mu dundal ñi dee mu régler problème bi yëpp mu indi leen ay oto yu naaw aywa woo leen ko yàlla de inna laa kulli shay'in qadir yàlla de lépp la mën wallahi mooy buur bi mën lépp lépp yàlla mën na ko amul lu mu tële lu ko neex mu def moom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu lu ko neex mu def keneen nag du la neex nga def de koo fi dégg mu ñu naan lu ko neex mu def bàyyi leen ko mu def ba bis ñëw danañ ko poñee ne ko lu tax nga def lii nga def yàlla moom laa yusal amma yafal wa hum yusaluun waaw preuve bi mooy ku ñu fi rey sa mbokk benn waaye ngi ni boo xam dañoo rey mbokkam lu ñuy njëkk a def mooy ubbi enquête di xool ñi rey waa ji wala bu ñu ko jàppee def ci moom li luwaa bi wax ku yàlla rey sa baay nag bu leer na yàllaa ko rey looy wax ah inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñun ci yàlla la ñu bàyyeekoo ci moom la ñuy dellu ndeysaan ñu ne la muñal waaye nga ne alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin waaye kontaan naa waay ñu rey sa papa nga ne kontaan naa mooy munu ma ci dara allahu akbar yàlla ay ngande ndeysaan noonu lay def sa papa noonu lay def sama papa noonu lay def ñëpp def ko sunu yaay def ko yaayu ñëpp def ko mbokk yeeg ñëpp dara nga ci mënut waaw ba pare sax nag da ngay jébbalu ne mbir mi neex na ma neex na ma de doo musa wax naqari na ma neex na ma waaw comme xam na ne yàlla moom lépp mooy borom asamaan mooy borom suuf moom yàlla lu ko neex mu def inna allah ala kulli shay'in qadir yàlla lépp la mën amul lu mu tële bokk na ci aaye yu ñu war a ëpp yaakaar ci alxuraan mooy aaye bi inna allah ala kulli shay'in yàlla lépp la mën soo gëmee loolu rek yow waroo am problème ah waratoo am problème sa dund ndax maadaama jàng ne ñu ne yàlla mën na lépp yow da ngaa soxla léegi nooy def te lii nga soxla moom xam nga ne mën na ko nooy def doo dem ci moom waaye nga jàngi ne la ala kulli seen qadir ba pare nga dem ci benn waaye ne ko man de damaa bëgg a tukki ne da ngaa bëgg a tukki nga ne ko waaw mu ne da ngay bàyyi ba guddi nga dem jël ñeenti ndox yu bokkut wala nga juróom-ñaari ndox yu bokkut nga def ko ci benn siwo bu ñuul nga bàyyi ba guddi ba gën du la gis nga ñëw ci sële bi yoon nga sangu nga demal la est-ce que loolu yëfu nit la borom kër gu ne léng ak tubéyam bàyyi ba guddi ngay nekk ci sëlëb yoon yi di sangu ah ak yàlla ni mu la defalee sutura ak yàlla ni mu la fonkee ak yàlla ni mu la bëggee nga nekk tey bi ab dof ndeysaan moo tax boo gëmul yàlla rek dof nga soo ragalul yàlla rek lu ñëw nga ragal ko loo gis ragal ko parce que ragaloo yàlla ki gëm ne inna allah ala kulli shay'in qadir moom problème am jeex na lépp lu mu bëggati ci kooku mën tey boo amoon benn borom alal sa xarit la mu ne la loo soxla ñëwal ci man loo soxlaa dal nooy def fooy dem ci moom ah yàlla ne la man lépp laa mën inna allah ala kulli shay'in qadir nga soxla dem keneen ni wóoluwoo yàlla moom moo la ko wax mu ne la inna allah ala kulli shay'in qadir man lépp laa mën am xarit mu ne la lépp laa mën loo soxla ñëwal ci man heure boo ñëw dinaa ko rek da ngay rey rek da ngay toog ba dernière minute nga jël te allo mais gaañ wari ma waaye jooni jooni ma mu ne ñaata na nga ne ko non mu ne non non waxal waxal ah looy wax looy wax nga wax li nga bëgg nga dégg yeeg sa portable ne karaj karaj nga ne ñëw na de yaay yaay ki may ponkal nga commencé yaa yaa ngi say sa xarit yi nga commencé di wax waajooju mooy kan léegi nag yow yàlla ne la inna allah ala kulli shay'in qadir man lépp laa mën te yow doo dem ci yàlla mukk jamais jamais dara doo woo yàlla nga ne ko yàlla wari ma nga jooni jooni ma bokk wala west bi bokk ba wóolu woo yàlla ndeysaan wóolu woo ko waaw wóolu woo ko waaw yàlla moo mun a wari waate ak moo mun a jooni waate ak moo mun a mone graam ak moo mun a wes te moom bosam dooto dootoo dem ñaari yoon de dootoo waxaat joxaat ma bu la ko ne tiw pare nga waaye tey ñoo dem ci moom waay tey ñoo dem ci moom inna allah ala kulli shay'in qadir man yàlla lépp laa mën amul lum la bàyyil de daf la ne lépp ala kulli shay qadir man lépp laa mën a def te doomu aadama moom am na fu mu yem de te kooku di la jox di la jox wala mu lay wala mu lay bés day ñëw nga wax mu ne gis nga nag gaañ xam nga nu ñuy def gaañ uti liggéey nag te loo def de sonn naa wala sa yenn saay boo ko wootee jot boîte vocale ba pare li gën a garaaw mooy yow gisoo ko bi nga koy woo mais bi mu la bi mu la wuyoo ba pare da doon ñaxtu non kii daf ma sonal quoi non kii moo ma lëjal xam nga yàlla yow boo ko ñaanul ñun bu ñu ñaanul yàlla yàlla daf ñuy mere yaa nee na bu ngeen ma dul woon ñaan duma leen faale maa ya abaaw bikum rabbi lawlaa duaaukum wallaahi bu ngeen ma dul woon ñaan duma leen faale wallahu in tarakta su'aalahu yaxdabu wa bani aadama hiina yus'alu yuxdabu doomu aadama boo bàyyee ñaan yàlla yàlla mere la doomu aadama boo koy ñaan bis bu nekk mu mere la sa papa ji la jur sax papa may ma mille mu ne am nga toog 10 minutes papa mille mu ne am nga toog 3 minutes papa mu ne eh yow nag xam ma bu ci yem subaag léegi ñaar laa la jox ne non papa 3 mille mu ne doy na te mooy sa papa wala yàlla nag in tarakta sualahu yaxdab boo bàyyee ñaan yàlla yàlla mere la da ngay julli fajar ñaan mu may la tisbaar ñëw nga ne noo ñaanoon naa fajar naa tëb tisbaar yàlla mere la ne la ñaanal nga ñaan tisbaar mu indi tàkkusaan bul bàyyi de boo bàyyi dalay mere ñaanal timis jot ñaanal gee jot ñaanal balaa ngay tëdd ñaanal ci biir nelaw yi ñaanal boo yeewoo ñaanal noonu rek yàlla xam ne am naa jaam bu ma soxla jaam boo xam ne xam na mënul man maa mën moo tax mu jël ay mbiram wékk ma ko waaye loolu mooy suñu problème dañuy jàng aaya yi nii di dem rek jàng inna allah ala kulli shay'in qadir jàng inna allah nangam jàng jàng waaye lu dëgg-dëgg ci jàng rek la yem dëgguwul ci xol yi inna allah ala kulli shay'in qadir yàlla nee na lépp laa mën walillahi mulku samawati wal ard yàlla nee na maa moom nguuru asamaan maa moom nguuru suuf soo jàngee lii da nga dootoo dem ci keneen keneen dootu la jaaxal keneen dootu la tiisal parce que da ngay xam ne waa ji munu munu fi dara amu fi dara moomu fi dara moog yow yam day feebar ni ngay feebare day ñàkk ni ngay ñàkke li lay gaar yëpp daf koy gaar moom doomu aadama bi est ce que miskin yi rek ñooy dem duus miskin yi rek ñooy dem duus ah normal yi ñoom duñ dem duus Isa ak yaayam biñ ne yàlla la xam nga yàlla pour mu weddi ko ne ñoom ñaar duñ yàlla xam nga lu mu wax mu ne kaana yaakulaani taam Isa ak yaayam dañuy lekk lekk ak rek lekk ak naan fu muy reese ana li ñu xëdde woon biig mu ngi ci toilette yi ana li ñu dogoo woon biig mu ngi ci toilette yi allahu akbar loolu ñëpp a koy def borom alal ak Samba ak Demba ak patron ak président kër goo fekk ñu tabax ko bi ñu ko tabaxee ba pare def nañ ko benn néeg boo xam ne waa ji foofu lay dugg audience kenn du ko- du recevoir kenn wala amul bale dama laajte loolu amul bale amul kër xalifa général yi amul kër imaam yi amul kër usaas yi amul kër patron yi amul kër ñam amul kër ñu ñàkk fii kulli baytin wa fii kulli makaan mbedd yeeg avion yi sax dañ ko fay def wallahi lazim wal mooy wan ne yàlla mooy yàlla tabaraka wa taala mbokk yi ci yàlla li mooy sunu dars tey assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh